mais man information bi ma jot biig ci guddi ñu ne Papa nelaw na dama dellu rek ci waajur wu tedd wa mooy Cheikhul Islam ma yéegaat ci Cheikh Ahmad Tidiane yi ma yéegaat ci ki nga xam ne sanga mu wala bi dafa mooy Sida Muhammad man maanaam comme ñu baax ñoo dem kii dem na non duma trans bu baax sama xol dana dana yëg loolu nag métti tuuti waaye dama gaaw yëgaat bànneex bi ngir ñii ñu ci sifaaw ndax ñii baax ñii bëñ demee ñeneen ñu ñoo kii waxatul leen loolu moo tax xawoon na ma tuuti mbett tuuti sakastare ma waaye tuuti rek après mu dem ma ne waa yàlla noonu lay defee lu ko ne lay def faaw la koo xam ne loolu def noonu la du tooñ lu mu def rek baax tooñ ko li tax yoon yàlla tooñ yàlla sax mënul tooñ parce que tooñ mooy soppandiku ci àllu jàmbor te yàlla moom lépp mm-hmm. kon ko mënul tooñ da ko da mun lu mooy problème yàlla kon ñu ngi sant yàlla baax di wax ne ku baax ba jégg day ci mbaax dem na ndax làmmiñ kat wax rek la man fekk xol la cay nekk ci ci ci ci ci bëggeel làmmiñ di ko mën tudd waaye ku baax dem na wilaaye Papa Cheikh ku jégg day ci wilaaye dama ne tey boo doon seet tey ay nu wilaaye ci ko suusi tey jàll Papa Cheikh waxuma wilaaye de ay nu wilaaye soxna seet ci alami tey jàpp papa Seex ndax papaam jàngal nañu ko ci beneen bu ko bëggoon lool te nekk sa julit ñu ne ko ah bàyyi mu ne ah man yow xanaa koy diw diw dafa la bëgg fekk te te ma ko du julit mu ne ah, man su ma ko xoolee wala lay gis ci moom suma ma ko xoolee wilaay lay gis ci moom su ma xoolee moom man wali wali lay gis ci moom te wali wali mooy Seex Ahmad Tijaan kon bu Cheikhou tere laaw tay nekk senegal yag ñu ne senegal nelaw na kon borom wilaya nelaw na. waaye daaw ko doxé de ben yoon. dugul bax ma nga ñew borom wilaya nelaw na waaye wilaya day dess té te wilaya am gi sik amuna na am na ko ba fees tal mais kenn ko xam ci mom ngir la bir gu ngir matam gi matam ngir nekk mbolam bi da foon yeb bay papa Cheikh. xàmmewul ki tijaan la kii murit la xamul loolu kii xaadir la non xamul lool kii canaba la déedéet kii Ibaad Rahman la kii Falaa la kii Ahmad Yoon la extra mboolem groupe yi yëpp xamu ku ñu war a recevoir noonu dafa nekkoon ku baax ku set ku sell dem dem na. yombalal nit ñi ci kilifa yooyu daan xam nga kilifa yu bëri dañuy tëju. Mm-hmm. ay papa seex doo dem këram mukk ñëw dafa tëju. Mm-hmm. mukk. boo demee tuutal cinq minutes toogal rek ñu di la toogal cinq minutes rek mu ne tël ubbi ne asalaamaaleykum nga jox ko loxo mu jox la ngeen saafara saafara njën dem naa ba tey ci moom saafaata ànd naa moom ba tey ci mbind Cheikh Ibrahim te yombal dama ko lool kon kon li nga wax rek moom wulaam gi leeral ci moom mais wuni ko kat mu ngi ne jàmm rek waaye bàyyam nag loolu la waxoon bàyyam na ne man ak ci yàlla man Cheikh Ibrahim waaye bala nga rek wësu fa jot mais bu fa sa nit laa comme nii rek. jëm ñu ne ba Fès ñu ñu mu ngi Rabat ñu jël oto luy benn oto foofu dem ba Rabat ci hôtel bi ñu yéeg ci oto fekk fu mu ci kaw ba ma séenee ndeysaan mu ngi tëdd xaw ko defoon nii waa dafa waa dafa toog ñëw na ko ñëpp sama loxo yi ñas mun ma kan la ma ne ko ñu ngi koy tuddee Sanga jaay dakaar hey eh, Babacar hey eh, eh, loolu indi fii. naa ko yor yaa ma féete yow yow fa dama fekk la fa rek mu téye sama loxo naj sama téye ko nag téye na ko téye ma ko ba mu yàgg mu ne Babacar mu ne maa dénk naa la yàlla Babacar dénk naa la Seydina Muhammad Babacar dénk naa la Cheikh Tidiane Babacar Ndiaye dénk naa la Cheikh Ibrahim Babacar Ndiaye lu coow li bëri bëri bëri rek coow na la bëri sa kaw lool nag ndax ndax ndax nii la ko waxee ñetti yoon la ko wax ndax ndax gi nag boo kenn xamul la ndax ndax ndax na pat jéem a na ma Babacar Ndiaye mu naa ah, ma ne ko sant naa yàlla baax ci yow foo jógee nii ma ne ko maa ngi jógee Sénégal yow kenn ma ne ko maa ne fukki ndox ñu ngi taw man ñoom ñëpp ñu jige Dakar ngir man ma ne ko yow ëpp ëpp nga lu toll loolu foo may nekk ci àddina bi ñun am nañ am nañ processus la ndax xam nañ sa liggéey xam ne sabab mi nga xam ne mu ngi ut tey liggéeyam lan la woon ci àddina bi war na àddina bi yëpp te fu mu dem rek day jàngale kon yéen foo dem ah da nga jàngale rek sëriñ bi dëgg la feebar mënta ñàkk waaye yow feebar bi ngay ñëw pour faj ko ci nit dañuy xamuñ ko xamal la ma la yàlla woon ci alquran shifa un lima fi sudur wa huddan wa rahmatan lil muminin yow lii ma si mission waaye da nga ñëw pour jàngal nit ñi rek yaram bi baax na ma taw yàggam ma téye ko la man sëriñ bi mën a am waaw man de xam nga lu mu ne ma ah man dama bëgg yóbbaale man man dama ñëw pour siyaara par suñu pare mu yóbbaale la Dakar kër ga dëkk ba maa res lépp nag sëñ ma la mu ree ne ma ah, Babacar jërëjëf sa xol bi yaatu na trop ci man waaye nag comme bàyyee guñ ma ndax danaa ma dim nii nii rek te dama la koy jéggal te ma nga am toogaat fii toogaat fii te ko te xam te te xam ma kenn la waaye incha su ma ñëwee su ma ñëwee Sénégal danaa la oo nga ñu seet si ko defee. kon sama diggante ak Cheikh Tidiane radiyallahu anhu àddina yëpp koo gis ñëpp ko gis parce que photo bi taxaw photo bi naaw partout dans le monde entier ci internet bi ci fu ne soo far fii gis ko moo téye sama loxo naj téye ko nii lu ëpp quinze minutes yokkal mi ngi wax ak rek ëpp ko nag dama wax quinze xam ngeen ëpp na ko yéen ko ëpp na ko wax nag man wax na ma wax na ma bana ma waaw Babacar mun waa yow faydu bi maanaam noo ci duggee laa ne ma sol lii ndeysaan ci faydu bi noo ci duggee yow fa jàpp bi ma nekk la ko ne sama parcours nag ci faydu bi nag mu kontaan jox ma dama ne ma ah nii la tëddee ma ko nii la tëddee mu ne yow jàmm rek am yow jàmm rek nga am incha allah waa góor gu na loxo waxtaan bi moom secret bi lii la kon di ay benn mbuur daal lay boo xam ne xëy na ni ko tu wax waaye dana Babacar mën a ah, am na su ma ñëwee su ma su ñëwee Sénégal nga seet sama yow am lu am am lu moo diggaale yow te la ma diggaale man leer na dem naa ko la wax na ma ko 嗯。